ñëw benn artiste daal di xaalis bari nga daal man soxla ma xaalisu kenn xaalisu kii laa soxla baax na xoolal. si ki njëriñ bi sax xëy ci làmbaay yi. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi damaa def benn vidéo man ak Baara wax ci njàpp ma ne njàpp gorewul du gor faramaare ni am ñu may taf. Lamine Ballago génn naan waaw yéen nag dangeen a soxor ndax li ñàpp am ngeen amul ndax li ñàpp def xam nga Wally sekk nangam nangam ah naan ma ay waaw Viviane mi ngay topp tax nga topp ko xaalis moo tax nga topp ko man déggoo li ma lax comme que ci Wally laa yaakaarul xaalis waxuma la ak Viviane man amul kenn ku may fay naan ma del wax ci diw amul kenn ku may jox xaalis nan ma dem a jàppale Wally maa ko bëgg te yàlla tax gën leen koo bëgg nag mu xam ko lool gën leen koo bëgg gën leen koo gëm mais bu dëgg ñëwee damay wax dëgg dama ne la njàpp du gor njàpp bakkat Sidi Diop dafa def visa ñu ñëw tukki njàpp moomu ay audio njàpp maa ngi moom mu naan man Sidi Diop sama papa sama yaaye ma ko dénk adduna du yàgg ma war ko adduna du yàgg ma ma lii ko yaa ngi dégg affaire bi waxuñu ay cadre Wally Seck bàyyi leen bu ñu waxee dara ngeen koy jël du ko tourner ci doowu Wally sekk yéen da ngeen di mar ay taat di wut lu neex nit man defuma loolu waali sama xarit la sama waay la bu dëgg jotee damay wax dëgg njàpp laay waxal waxuma ak waali njàpp du gor nday njaay bànneyaa Sidi Diop ma woo Italie ma toog mu paas ma yaayam yaay wem di jaay téléphone di jooy téléphone bi papam di jooy nday njaay sukk di jooy Sidi di jooy xol bi tooy mu ne ma kii li nga ko def daf ma métti man ak dama ne woon damay xeex a yow ba pare bu may dee dee bu may dugal ci réseau yi ma dugal ko nday njaay ngi toog yaayam moo ma ko dénk nday njaay di jooy mu tax ba waxatuma nday njaay bànn yaa dara bàyyi lépp jéggalu ko jéggalu yaay mag papaam comme démb ci man léegi noo kooku nan koy fayee li lii lan koy fayee lan mooy ay ay gay man dëgg laay wax dama ne la booy bii du gor njàpp Sidi Diop ba tax nekkul góor jigéen njàpp góor jigéen la noonu doon booy yooyu doon way naan simini ni xanaa ma dugoon ma woo c'est ba nag kon dañ si kuréel ko suur rek mu def oh xam ngeen boobu njàpp la woon ñëpp di ko jiñ góor jigéen ñëpp Sidi Diop jël ko defar ko taatan ko ba mu doon li mu doon tey yéen lan moo tax ngeen doon naa feq xam nga lan moo tax man bokkuma ak yéen parce que man am naa xaalis réew naa yaakaaruma kenn amul ku may jox dara nit ñëpp a may dégg sama baat ci kaw amul ku may jox dara am naa nag samay nit ñu baax. ñoo xam ne samay nit yu baax lan lu ma leen wax ñu jàpp ko mais lu jëm ci domaine u artiste waykat yi amul ku may jàppale ci dara fu ma dem maay jël hôtel maay fay sama xaalis maay dépassé au contraire sax damay def si ñoom ñoo la ko gën a xam man Lamine bokkuma yow Lamine Balla ko yow mii di ma tontu chaque jour nga ñaan ma xaalis fu mu dajee ci may ma cent cent euros may ma deux cent euros dimbali ñu aadama nangam lekk ak naan sax maa la koy jox dugal la sama biir suite jox la caabi nga téye xamante nan man yi ngeen nekk nekkuma ci yaakaaruma kenn bay maral kenn taatam comme mën a doon muy waa côté bi di waa côté bi dëgg laay atte sama diggante Wally sekk nag tuuti ngeen pour dugg ci man waxuma cadre Wally njàpp laa leen wax du gor jaam la lii du yëfu gor bala maa dee ñu naan waaw ndax dafa sonn daa bëgg a dimbali yaayam ko bëgg a dimbali sa yaay nangam nangam nee nangam nangam nee nee àdduna da nga naan tekk tekk wala yoon àdduna méttiwul de yéen a ko méttil yéen nag seen wax jeeg pasar pasar jii nii moom xam naa ko yéen da ngeen wut lu ngeen ni am ak wut ku leen di ca kaw ak ku leen di kii man dépassé naa level loolu man yaakaaruma kenn pour nit ñi xam ma ñëpp ma xam 18 million habitants bu ma waxee réew mi yëngu dëgg rek ki lay dox njàpp jaam la du gor man maa ko man boos de néegri